jërë mbokk jëf mbokku téléspectateurs yi ñu jégalu bu baax a baax dox bi dox bi doxoon fi diggante ak yéen xam ngeen ne wàllu machine moo demee noonu ñu ngi leen koy jégalu waat bu baax a baax di nuyu waat bu baax a baax suñu doomu bàyyi yi nga xam ne euh, moo doon continuer ñu koy doog a di Guèye Massiré Issa Dieye comme ni ma ko waxee comme mbaa kon mbaa kër ñoo jaaroon fi sax ñu tagg leen te yow Guèye moom Massiré Issa Dieye <laughs> Moustapha waaw dañ ko bàyyi may si kon ñu doog ak si ci mbokk mi di salaamaaleykum wa rahmatullah restaurant. Mm, bisimilah. dégg nga allo. allo oui. kooku oh, ma la Aada Ben. Aada ah, Gaye. Ah, Aada Pen Pen. ok na nga def. maa ngi fi. waaye yaa ngi am jàmm ak wéccet. waaw ma nekk ci jàmm bu baax. alhamdulilah yow rek la ñuy déglu. Hmm? soo toog mu dafa. soxna Adama maa ngi lay ziar. ñu ngi kontaan ci émission bi bu baax. ah jërëjëf waay. ñu ngi kontaan ah jërëjëf merci beaucoup. tonton Moussa moom daa fekk ne nit ku baax la moom. Mhm. moom tonton Ba. li ma bëgg yàlla na ko yàlla ku yàlla yàlla na ko yàlla defal rek. amiin amiin amiin ak sëñ Tuubaa. na yàlla may fan gudd. amiin amiin. ay wér gu yaram. amiin waay. tonton Moussa moom daa fekk nit koo xam ne ndax moom boo nekkee centre bi. Hmm. comme ni ko ma Fatou si la waxee rek. Hmm. ba ñëwee ngay njëkk a gis. Hmm. waaw loolu moom nañ koy bàyyi yàlla rek. lu bëgg moo xam yàlla na ko yàlla def. amiin amiin waay. ñu ngi nuyu ma Fatou si la. ak Mor moomu toog. ok waaw. ñu ne ñoom ñëpp yal na yàlla may fan gudd. amiin amiin soxna Adama. lépp lu yéene seen liggéey bu yal na ko yàlla àggal. jërëjëf amiin amiin di barke Serigne Touba. ñu ko àndal. Mm. jërëjëf soxna Adama jërëjëf. waaw baax na. nuyu nu maire beeg paa bi ñëpp rek. te ay na Basi lu waaw kii itam soxna Adama Pène mi moom itam. Mm-hmm. bokkan si ñu génnoon ren ji ñoom mm-hmm. euh, mu nekk jàmbaar trop aussi. Mm-hmm. jàmbaar la woon ci ñi daan gont si la bokk daan góorgóorlu lool. maa ngi koy nuyu di nuyu yaayam ak papaam di ko wax ni. seen xéwal bi ngeen na joxoon ci remise diplôme ba léegi jeexagul maa leen di sant bu baax di leen gërëm waaw suñ ko so hmm. am nañu mbégte daal bu baax a baax ci euh, ñi nga xam ne itam yàlla dogal na sax mën nañ ni remise bi génnoon ñoom ñu njëkk a dugg si euh, téléphone bi hmm. kon loolu dañuy nekk loo xam si ne maam lu feeratale doon si ñoom hmm. am na si mbégte bu baax a baax itam di leen nuyu bu baax a baax sant ñëpp di leen gërëm Moustapha nettal nga ci point bu am solo mooy jàppale bi nga xam ne suñu kilifa ñu yaakaar nekk ci dëkk bi war nañ ko jàppale ndaw ñi nga xam ne seen ay taalibe lañ yaakaar leen ba noppi di ànd ak ñoom ci lu bëree bëri bu ñu soxlaa ñu jóg yaa ngi doon wax jàppale gi nga xam ne war nañu ko jàppale ñi nga xam ne ñooy seen ay taalibe waaw sëriñ Koso loolu boo man fu ma toll dama ciy gën di insister li ko waral mooy que mm-hmm. nit ki bu fekkente si ne dafa am ñoo xam ne yàlla daf la boole ak ñoom mm-hmm. euh, par exemple comme ni ma nekkee ak xale yi rek ni ma yàlla boole ak ñoom mm-hmm. war nga fexe ba Euh, yaatal yaatal gi mooy que nit lu mu doon lu nekk nga nekk ci bëgg mu yaatu da fexe ubbi boole si ay nit ñu bëree bëri hmm. bu ko defee loolu noonu day indi leneen hmm. mais bu fekkee tey yow par exemple euh, ma koy joxe ci exemple ci télé bi rek hmm. bu fekkee tey euh, da ngeen a yor seen télé bi sa waay ah, Waarwi TV sa waay yem ci nu mu tuut benn caméraman nu mu tuut benn journaliste boo xam ne daf koy defal émission yi est ce que dana taxaw sotti du sotti il faut que ñu am ñoo xamante ne dañuy jàppalante kenn ku nekk li nga yor di génne ko teg ko ci taabal ji jéem a boo ko defee euh, ndaw ñëpp dañu mën am si lu jàpp. te itam man dama gëm ne comme ni ko suñu Muntaxa di waxee kenn ku nekk war nga fexe ba euh, dund gu am njëriñ mooy que bu ëllëgee nga jóge fi bàyyi fi dara. ñun bu ñu xoolee ay Nelson Mandela ñu ñu tiitaroo dëkku ñu ci réew mi. dëgg la dëgg la ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañ leen tiitaroo te ñun bu ñu mhm. jàpp naa ni ñun ci sunu biir war nañoo am ñoo xam ne dañu leen di tudd ci réew mi di xalaat naan ñii de liñ fi nekkee woon ci réew mi ëllëg nii mhm. ay jàmbaar la ñu woon loolu moo waral su ma toll di insister ci kilifa yi ñu jéem a jàppale jeunes yi Touba yi mhm. muy ci kilifa sëriñ si muy ci euh, gouvernement bi ñi nga xam ne ñun ñoo xam nga Touba am na si ñoo xam ne ñoom ñoo yore maanaam wàllum gouvernement bi ci état bi ñoom ñooy ñoo yore suñu suñu suñu kii daal ci gàttal man naa ne ñoom li ci dox ñoom ñoo koy dox kon ñoom war nañoo fexe ku mel ni ministre bi nga xam ne mooy wàllum formation xëyum xale yi hmm. war nañ ñoo bàyyi xel ñun waa Touba xam ni fii mënuñu fee wan lenn loo xam ni Touba jeunes ñu ngi ciy liggéey bu fekkee am nañ ko nañ ñu ko wan ñu gis ko hmm. amu fi yaakaar naa ne doon ko gis doon ko doon wër doon ko gis kon nañ si dimbali bu baax a baax xale yi am métier sëriñ si itam li ñu yor ñoom itam ku ci mën a jàppale xale yi euh, li ma ko waxoon keroog rajo bi bëriwuñu dara. Mm. terrain boo xam ne sax boo ko jëlee jox ko xale yi ni leen ngeen def fii seen centre formation culturelle wala ngeen di seen école nangam nangam loolu sax njëriñ la. Mm. Ah, loolu jëriñ la ci biir réew mi ñu ngi ciy soññ ñëpp baax a baax nag. Mm. am na si ñoo xam ne wax dëgg yàlla ay nit ñu baax lañu fu ñu toll ñu ngi woo di ñaan donte ne amuñu doolee def si itam ah, ñu toll ñu ngi wax ci dañu soññi kon loolu te ñu ngi leen di sant bu baax. bëggoon na ay coup de fil ay téléphone yoo xam ne woo nañ la ngir jàppale la wala ci état ak ci kilifa diine yi. non amul nit ñi moom daanaka yàlla na yàlla jégal mais Sénégal intérêt dafay gën a bari boo xoolee daanaka ñoom ay defal ma ma defal la rek la. ndax waxal naa la ko benn remise de diplôme boo xam ne kilifa ñëw. boo xam si ne mm-hmm. ci mm-hmm. wàllu. waaw politicien la. Mm-hmm. wax ak ñun baa xam xamante si ne dañ koo tudde woon bis ba mu ñëw fii jot a ñëw dem bis bi jàll xam nga ba ñoo invité la waat xale yi dañuy jaar affaire politique ak kenn xamul xam nga yooyu. kon xam naa dañuy dañuy dañuy dem France jëlee suñu suñu mbokk moom nga xam ne mi ngi France kon bas bi mu accès rek nga bàyyi ko mu yegg si waaw kon nañ ko bàyyi mu mu mu mu dugg mbokk mi ci biir salaamaaleykum. waaw waaw. nga xam si ne ne maanaam dama ko man a waxee daal ci gàttal war nañoo am daal ñu leen dimbali. dañ ko jëlee Modou Lo. sëñ Modou bisimilah. sëñ Basir. ñu lay siyaare bu baax Modou. ngi ci jàpp bu baax. ñu ngi sant ah, maa ngi lay siyaar sëñ Koso kii sama doomu ndey la. xam na lépp yow sama commencement lépp xam na ko boo duggee rek daanaka mat na. dégg nga daal man daal man maa ngi bég rek. Mm-hmm, mm-hmm. wax dëgg yàlla lii moom dama koy rafetlu bu baax jaajëf kontaan kontaan naa ci lool nag ndax euh, lii moom sa pas-pas ak sa am jom mool may parce que nit ki foog nga am benn gëm-gëm ci sa bopp gëm ne yow ëllëg da war a teg te da hmm. war a bokk ci ñi teg hmm. parce que nit ki bu fekkee ne da ngaa judd te amaloo jariñ société bi rek. maanaam jëriñoo dara sa dund googu jëriñu dara parce que àdduna bi koo fi gis maanaam da da da ngaa après nga mën a nga mën a nga nga mën a nga mën a nga mën a servir sa peuple quoi. tey jii moom yàlla def na métier mi muy jàng nii jàng na ko ci diire bu gàtt. man benn instant sax damay posé wu question naan Moustapha diggante bu gàtt bi nan la ñuy a jàngee wéccit hmm. maîtriser ko ni mu ko maîtriser nii te nit jàng na cent ans maanaam euh, waxuma cent ans sax man nit jàng na dix ans hmm. ci ci ci ci ay euh, euh, étudiant te maîtriser wu ko ni mu ko maîtriser nii hmm. loolu nag taw tawfeexu suñ borom la ak may-mayu suñ borom la ak gëm-gëm parce que tamit nit loo loo xam ne si yàlla yàlla mën na laa bëgg a may waaye foog nga gëm sa bopp tamit boo gëmul sa bopp rek maanaam lu ci bëri du sot sa vie en général sax maanaam nit ki boo amee fit ci li ngay def même boo ci amul connaissance sax boo ci hmm. amul xam-xam hmm. suñ borom mën na kaa sottal ba tax na hmm. tey jii bu ma gisee Moustapha di toog di wax ci en di wax ci euh, centre de formation loolu mm-hmm. sama fierté la dama ci kontaan ngir maanaam liggéey bi ñoo ko àndandoo sumb ko mm-hmm. man ak euh, beneen jigéen waaye mujj na kooku noonu euh, mujj ta woon a ñëw mujj mujj ta woon a kii daal ñëw ci liggéey bi mm-hmm. ba mu jigéen nag affaire yi diisoon na lool ci moom ba ma jërëm ko ci nag na ko nag Moustapha affaire yi moom metti na lool xaw ma nag noo koy seeree ba mën a jàllale sa projet yi mais tamit lii moom metti woon na parce que bilan bi biñ ko doon def man a bi bi biñ ko doon def man a moom ak ak kooku noonu ñoo toogoon mm-hmm. après nag voilà euh, yàlla dogalee ko nii mais tamit lépp lu suñ borom tuddoon la mu waroon a nekk ci loxoom mm-hmm. waru ko woon a bokk ak kenn mm-hmm. ba tax na daal moom kontaan naa ci moom Mm-hmm. di ko wax ne ko nga gën a yokk rek mm-hmm. effort yi jéem góor góorgóorlu mm-hmm. suñ borom eh, dana la gën a jàppale parce que nit ki moom bu xëyee di sabablu rek suñ borom moom mi ngi ci wetam suñ borom moom ku yaafus rek la mun la munu ci moom dara moom ndax moom wërsëg li mu la war a defal moom defal na la ko bindal na la boo xëyee na nga jéem ba keroog ngay tël waaw boo tëlee nag suñu borom moom foofu moom da fi lay ñëwee nag fi lay intervenir xam naa ne pour bañ a jël seen émission bi jël jël ci temps bu mm, ak ak xam naa ne euh, waxtu wi noonu xëy na mën na leen a xot jeeg yooyu noonu moo tax du li li li li bëgg a wax ni yëpp moom xajul ci émission bi sax. jërëjëf yow xam nga waaye leen koy dañ leen koy résumé rek. ndax Moustapha moom ñun ñoo daan ànd di jàng xasaay yi. Mhm. ñoo daan ànd fu fépp fu mu daa ànd fépp ñoo ko daa ànd. Mhm. lu ci bari ñoo ko daa ànd. Mhm. ak jiileeg ak am saak ñoom ñëpp ñoo daa ànd. ay doomi bàyyam la ñoo ñoo ànd di jàng. Euh, fu nekk jàng nañ sa xasaay. jërëjëf waaw ndeysaan. waaw waaye moom tamit moom li koy gisee noonu. ci jàngu xasaay tamit jàmbaar la ko woon. Ah, loolu de information la moom. ñoom <laughs> jàmbaar jàmbaar la ko woon waaye nag maa loolu de information la xam moom. naa de. ma toj la tuuti wala. Ah. non non dama koy toj <laughs> ah jërëjëf Modou. kontaan nañu kontaan nañu trop. ah kontaan nañu trop jërëjëf. Ah, eh, Moustapha bi nag moom sa waay xaw ma sëñ Gasso dana ko nangu waaye da ñu mosal tuuti ci xasaay di rek gars yi ñoom mënoo ñëw mën nga ñaan mën nga ñaan war yëpp. te te ma la ko bàyyee baax jërëjëf kontaan naa jërëjëf jërëjëf trop jërëjëf euh, kooku sama xarit mm. moom euh, mën naa ni yàgg nañu kon ni nga ko waxee léegi mm. ñoom daw ñu tàqali ko ñu daan ànd seen kër ak seen kër en face ñu jàkkaarloo wax na ko bay maa ngi koy nuyu di nuyu tim maamam yaay maam maam Dior Lo ak mboolem waa kër gi rek dañu baax diggante bi ñu nekk lépp wax dëgg yàlla vraiment ñu baax la ñu ñu ngi nekk France lépp it fu mu toll ndeysaan ñu ngi déggante ñu joxe conseil di dëpp ci di ñu euh, conseil daal fu mu toll suñu xarit la mënu maa wax ci moom daal waaye daal am nañu bu baax a baax ñun a baax dañu ñu bokkal nekk foofu xale yi daa mel ne nañu faw euh, ñu ubbi mel bi bas euh, bàyyi ko mu ñëw fekkee ne mi ngi ci biir mu dëkk waaw nañ ko bàyyi mu ah. d'accord mbokk mi ci biir bisimilah salaamaaleykum salaam wa ñu ngi lay ziar. bu baax. Moustapha ak lay dégg. waaw. Bass nee jigéen ñaa ngi sodde. allo jigéen ñaa dañoo a sodde hmm. a sot. daa mel ni kooku daa mel ni kooku génn waaw ginnaaw moom moo ko def nee na jigéen ñi lay formé kay. jigéen ñi ko nekkal comme que moom euh, gars yi nangu ñu investir dara kay jàppale jigéen nekkal leen fi rek parce na leen di jàppale incha allah. waaw dëgg la mais euh, jafe-jafe dina am ndax. Hmm. fi mu toll nii jigéen ñëpp bëgg ko leen former. Mhm. waaw am parce que ñun euh, mën naa ne ne chaque année nga centre bi la Mor wax léegi bi nekk Guédé bi ñu ko tijjee yàggul te boo xoolee ñu ngi ci ay lan cent trente personnes. Mhm. ëpp na ko sax dafa wax. mbokk mi bisimilah ñu yaakaar rek. asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi leen di bu baax. ñu ngi delloo ziar bu baax. Abdoulaye Ndiaye Touba. Mhm. Abdoulaye Ndiaye. Moussa Guèye. maa ngi baax kooku sama doomu nijaay la. Guèye Ibrahima. borom centre formation couture kan parce que saa jéem. waaw gerte ah ñu ngi lay baax a baax. Basiir yaa ngi lay perturbé de. lépp lépp yow la de. ndeysaan jërëjëf. Mm-hmm. bu dul woon ak mu ñaaw de Bindaay. ndeysaan jërëjëf. yow kay. li ma waxoon keroog rek. ndeysaan. ñu ci biir bisimilah waaw. waaw ñu ngi leen di jaar. kooku. Xaadim Diop Diop taalibe Bamba. tamit nit ki doomu aadama te li may wax ni xam naa si sax. man ak moom mën naa ni benn lañ. ndeysaan. donc li may wax xam naa si dara. dëgg la. ah débutant bi yëpp dama ko xam. Mm-hmm. xam li ci jaar xam mais daal li ma leen mën a xamal muy nit bu ab gëm-gëm ku nangoo liggéey te mu ngi noonu. Hmm. donc di ko ñaan rek te di ko wax na xam na xam ne moom dara. parce que xale yu bëri ñi ñi ngi si ñi ngi si ñi ngi si karam bi ñoom moom du mën hmm. loo war gën a la continuer rek. Hmm. loolu dafa naa jàpp ne dafa ko dara. Hmm. parce que. Hmm. dëkk bi ñoo la soxla dëkk bi la soxla réew mi la soxla sax laay wax. réew mi la ko soxla waaw. ba ma bëri woon ay ñeent Moustapha wala. ba ma ci man mu ne bu ko amoon. Ah, am naa yaakaar dëgg kon lu bëree bëree bëree. dana dana dana dana dana saako. waaw parce que mm. euh, yi da ngay mm-hmm. parce que lépp liggéeyam moo ko moo ko laaj. Mm-hmm. barakallah jërëjëf baax a baax a baax. Basir ba mm-hmm. kii itam sama doomu sama papa di jaayam la nekk seen kër la nekk. moom yaakaar na moom laa wax ci biir noonu keroog danaa la ko wax barki démb jàmbaar la lool moom xam naa ne sax da ngeen koy indi ci Waarwi TV parce que waaye mm. jàmbaar ci lool xare si ñu koy nuyu moom itam xam na lépp li ma wax si Modou Lo rek moom daanaka sunu ndaw lépp ñoo tax ñu doon ànd nekkit koo xam ne dëgg yàlla ku baax la Basiru Basiru ba ne doo ko ci is mu ngi ñuy soññi dañu ñaanal ñun liñ gën a soxla waaw ñu mel ni ñii la soxla ñoo xam si ne maanaam euh, dañuy soññ hmm. donte ne defaluñu dara te dañu soññ loolu rek tawfeex la hmm. ndax ki nga xam si ne mi ngi lay soññ kooku bu amee defal la ñu mel noonu dañ leen di soxla bu baax a baax ñu ngi koy nuyu xaadim hmm. euh, di la wax kontaan nañu bu baax a baax di nuyu sama xarit yëpp bowunu ñenn rawatina élèves yi nga xam ne ñoom la ñu bàyyi ci centre formation kër sëñ Fallou kër sëñ Abdou Karim kër sa Amsatou Euh, ñëpp rek ñu leen di nuyu ak sunu xarit yi sunu am yi ñëpp rek bëgguñu kenn daal. Euh, ñu leen di nuyu baax a. mais centre formation yi comme ni mu tasaaroo xaw laa sori tuuti. Mm-hmm. te yow xam naa lu ci ëpp yaa ngi féete fii ci. Daaru euh, Muxti yoonu Daaru Muxti bi. Mm-hmm. loolu naka lay naka lay doxee ndax xale yi nga formé bàyyi leen fa comme mel ni sëñ Mor Gueye ñoom ñii. Mm-hmm. da ngay am ci ñoom confiance ba mën nga leen a bàyyee xale yi. waaw ñii ñii bu ma toogan daanaka lu mat ay deux mois wala trois mois yoo xam ne gisuma leen sax mm-hmm. sama xel day dal sama xel day dal que xam na ma def si ñoom loo xam ne ko jëfee mm-hmm. xam naa ci du jar may dem fa mm-hmm. loolu moo war a sama dem fa du bëri dèjà ma dem fa nii rek mais dem bu néew man du fii ci sees bi moom mooy kër sëñ euh, bi tuuma ko te tamit yéex ngay ñëw gi laay rëy wax dëgg fa yàlla parce que li ma gis ci moom naa ne gisuma ko fenn ci mbaax gi ak yaatal gi mën a mën a fonk nit daal seeta nit boo koy jàngal war nga ko mën a jël takku ci sa bopp ba nga xamante ni si lépp loo koy jàngal sax dafay dugg da nga kaa xoola yeneen bët wala nga koy ñaane wala nga koy koñe moom daa bëgg lépp loo xamante ni si nekk na ci moom sax lu ko raw mu def ko ci yow loolu la yéen a yooyu la am moo tax tamit ñi nga am contentement baax a baax di ko ñaanal yàlla rek euh, mu yàgg fi lool lool rek suñ kanam yàlla yàggal ko mu yàgg fi rek mooy suñu njëriñ mm. di njëriñul Sénégal yëpp rawati nag waa Touba waaw loolu seetlu naa ko ci moom ndax gis naa ne fu ñu ko invité buy dem day ànd ak yéen waaw loolu yaakaar naa xolo iñaan bu nekk lu bañ génn ñu ci bu ñuy dem daa nekk duñu ànd ak kenn ñoom rek ñu ànd waaw loolu que boo gisee heure bu buy dem mm. fu ñu mënti dem day woote ñëpp bëgg ànd ak ñun mm. loolu boo gisee yaatal gi mu yaatal ak bëgg gi ñu bëgg fonk gi ñu fonk jàpp ne ñun ñëpp benn la moo ko waral parce que tey bu fekkoon ne bu ko neexoon tey buy dem rek daal ni suba am na fu may dem bu ko boobaa mën naa dem dem dem dañu kenn mais bëgg fépp fu muy dem rek ànd ak ñun te noonu tamit la nekkee ñun ci liggéey bi parce que liggéey boo xoolee ñun moom lépp luñ ci xam rek lu luñ ci man wala lu bu yegsee fii tey lépp ba euh, ginnaaw yàlla lépp moom la parce que xam-xam bi moo ko def si ñun moo ñu formé ba pare tamit ubbil ñu ay centre ci di jàngale mm. loolu yaakaar naa bu fekkoon te la koo xamante ni si dafa soxor wala mu jël lépp rek boo ko yor boom peut-être loolu lépp du ko fekk mais nit la ko waxee rek lépp loo xamante ni si mi ngi ma am moom da koy bëgg a doomu aadama loolu moom ñu ko ñuy sant bu baax a baax di ko gërëm di ko ñaanal tamit yàlla bàyyi ko fi rek ndax parce que moom moom bu des fi rek mooy suñu njëriñ comme ni ma ko waxee kon di ko ñaanal bu baax a baax a baax bu loolu jàllee tamit comme élèves yi ni ñu koy waxee rek parce que man moom euh, tout le temps damay damay soññ élèves yi parce que tamit jàng na loo xam ne nii si nekkul ak njàng ma mënti doon nag surtout njàng métier parce que nekk na loo xam ne si dafa am ay coono kon coono yooyu nag boo ko dee jànkonteel bu fekkee ne da a découragé wu rek mën ngaa découragé wu jàpp ni yow dara du baax mais liggéey li ma koy waxee lu métti yàggul loo xamante ni dañ naan ay ñaaret nga ci def peut su mën na ko bañ a mat kon li lay jaarale mooy gëm-gëm fonk ko boo ko defee rek doo fi yàgg mais su fekkee da nga bëgg a ñëw ci centre bi di wut ay àndandoo ay xarit wala di taxawaalu xam nga loolu amul sens nit ki li la tax a jóg da nga xam ne moo la tax a jóg nga def ko ci fulla ak fayda tamit suñu genre moom dafa am ay parce que li ñu fay aaye képp la hmm. buñ la gisee ko xam ne yaa ngi koy def boo ko nangul bàyyi moom doo yàgg ñun parce que dañ lay daax ñun suñu moom noonu lay doxee bu loolu jaaree tamit képp koo xamante ni si yaa ngi ñuy muy parents muy ñëpp daal képp koo xam ne yaa ngi dégg bëgg indi sa doom. ah waaw na jël ko ci bi dellu si waat waaw ah, kay Basirou bàyyi ko mu kon. mbokk mi ci bi salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah taala wa ahlan wa sahlan marhaban bikum. ñu lay ziare bu baax sëñ bi. lay delloo ziare bu baax. ziare sëñ Moustapha. Moustapha ñu lay fay kon day màggat. waaw Moustapha. waaye da xam naa la moom. <laughs> ñu lay ziare bu baax. mais delloo ziar. di ziare ak soxna moom. ñu koy fay. ak maam moom ñu ngi leen bu baax. yàgg na ci ligne bi torop di ah baax na yow baax na si yow. <laughs> na ci man. mbaa ko mbaa xam naa rek. <laughs> ana xarit Seye yaa ko téye xanaa. xadi déedéet. <laughs> maa ngi koy nuyu daa war na de. Badou. est-ce que du maa nag. xam naa. émission moom neex na torop. ah jërëjëf. ñu ngi bég torop ci émission bi di ziare sëñ bi toog foofu. sëñ Koso. sëñ Koso ñu ngi koy ziare bu baax. jërëjëf jërëjëf. di ñaanal sëñ Moustapha. Mm-hmm. yàlla defal ko lépp lu mu bëgg ci àddina yàlla defal ko ko. amiin. di ko ñaanal mu doon ci milliardaire yi sëñ Touba yi. amiin barke sëñ Fallou. lépp lu mu bëgg ci liggéey yàlla defal ko ko. amiin amiin. mënoon naa mënoon gis ne élèves ay jigéen moom dajale ci benn place xam nga ne yombul. ay jigéen ci dajale benn place moom yombul waaye nag yal na ko yàlla gën a jàppale bu baax. yàlla yàggal kàttan gi ak mboolem ñu ko àndal ñëpp ba ku faal. xaaral ma jox la soxna am jaxate. ah jox ma ko waaw. Aliou. allo Ami Jaxate. salaamaaleykum Moussa Ba nuyu naa la. maa ngi lay fay Ami Jaxate. ci jàmm ba. ñu ngi sant bu baax yaa ngi jàmm. ah tey moom kontaan nañ trop moom. ah merci beaucoup ñoo ko bokk. ñu ne ko dafa seetlu. ndeysaan ñoo ko bokk. yow da ngaa baax. baax na jërëjëf waaw. allo. Khady Seye. Aliou tontu Moustapha. yàlla na ñëw tey ah war na ñëw de. tey moom dañoo kontaan moom ñu ngi rek. ah ndeysaan jërëjëf. bilaay barki yàlla. ah jërëjëf ñu ngi bokk. baax nga moo tax. bilaay. a baax rek. yàlla na la yàlla fay sa xol rek. amiin amiin barke ñoom Mor ak ñoom Mame Fatou ñëpp ñu ko maa leen nuyu. ñu lay dégg ñu lay fay lu bari. ak Ibrahima ñun ñëpp. jërëjëf. jërëjëf waay. baax ma mère Gueye bu baax baax. waaw ah, ok waaw bëggoon ñëw waaye lii lii bee ko matewul rek. waaw ah, noonu la noonu la jërëjëf. waaw wala na lépp. waaw. ah gis nga boo bi doon fàtte añ bi. ci <laughs> la bokk de moom mooy te xaalis moom koy jàngale kuur gi moo rek. Mm. ginnaaw bi maam Fatou jàngale 9h euh, ba 14h. Mm. moom xaalis yi mi doon woote léegi mooy jàng. mooy dugg maanaam euh, trois heures mm. ba dix-huit heures trente waaw di ay jàmbaar la ñi woote woon itam kenn ki magam la ma nday màgga ñu ngi koy nuyu ami jaxate ñu ñëpp ci élèves la ñu bokk xale yi daanaka li ñu seede ci man euh, li ne ci ñoom ko def ndax ñu baax lañu fu mu toll ñu ngi waxtaan ak man di kaf ak man te itam euh, yooyu yëpp itam mënoon na am daal beneen kii bu dox suñu diggante waaye amu ci ñu di nuyu leen sant ñoom ñëpp. donc loolu yëpp ñu libéré euh, suñu doomu baay bi euh, Guèye Ndiol kon ñu bàyyi la yow élèves yi bu ko defee nga dénk leen dara daal di koy defal ab tàggoo. waaw comme leen di wax rek ginnaaw bi ñu leen siyaare waatee rek. Mm-hmm. yéen ñaan jàmm te di ko saaku ci yéen. Mm-hmm. di wax ni maa ngi am contentement ci émission bi baax a baax a baax a baax di ñaan tamit télé euh, bi nga xamante ni si mooy Waarwi TV mm-hmm. yàlla fal ko ba mu nekk ay télé télé télé ci barke Seydina Ahmed mën na ko yàlla na ko def gën a tamit di ñaanal suñu patron parce que ñaan ngi koy ñaanal suñu xol lañ ko tuddee wax dëgg fa yàlla di la ñaanal bu baax a baax rek parce que wér a gudd fan mooy lépp wér ak gudd fan yàlla na ko yàlla may may ko tamit ñi nga xamante ni si liggéey bi Ibrahima maam Fatou si la maam Mor ak maam Diarra maam Mbousso si la maam Mbousso Cissé ñëpp rek tax di wax tamit ni képp ko xamante ni si yaa ngi bàyyi xel hmm. képp ko xamante si bëgg ngaa indi say doom pour ñu inscrit hmm. ñu ubbi hmm. muy centre bi nga xamante ni si moo nekk euh, yoonu Darou Mouhty bi kër euh, centre formation kër Sëñ Fallu bi ak bi nekk Guéré en face euh, Guy Siar ak bi nekk tamit Euh, ndindi yëpp rek ubbil nañu suñu port di leen wax ne ñu moom donte ay ndaw lañ mais gëmuñu lu dul liggéey mm-hmm. te comme ni ko parce que affaire bi nekkul que ni da ngay nekk xale rek mm-hmm. wala nga nekk ndaw rek waroo gëm sa bopp waroo gëm ni war ngaa mën a yegg fenn fi mm-hmm. ak ku mënti doon ba ci élèves yi nga xamante ni sax dañuy inscrire sax dama leen koy wax dama naan leen inscrire rek tey tey warul tee sax nga gëm wala mën a gëm yow déwén ñeenti wala ñu a bokk parce que boo gëmee sa bopp liggéey def fulaa fayda yàlla mën na la jàppale mais li mun li mënul nekk mooy nga bëgg a liggéey boole kook ay caaxaan loolu rek moo mënul nekk di santaat bu baax a a a baax jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf ngay monsieur Reis ngi la gërëm euh, di la ñaanal nga yeggale ndax mel ni euh, ni Moustapha ni nga gëmee sa bopp dafa mel ni moom mii li ma seetlu moom loolu la gëmee boppam. waaw loolu dañ koo def si ñoom moom li ma la wax léegi rek parce que chaque jour li ma leen di wax mooy ñoo war a gëm seen bopp parce que nit ki il faut que dafa am loo ne soo ko bëggee da gëm dama leen koy faral di wax ne leen nit ki pour nga mën a jàll sa yoon am ci li nga bëgg da ngay gëm li nga doon te itam da ngay gëm sa bopp baax a baax loolu mooy waral maanaam li nga bëgg mu yomb. ndax soo gëmee sa bopp yu bare bëri dootoo ko xalaat dama leen di wax ni leen war ngeen a dépassé maanaam ma sama yaay wala sama grand parce que mbir mi nekkul foofu ñëpp bëggee wéeru ci suñu kilifa wala suñu mag su boobaa kon réew mi bi dem ndax tey jii par exemple ci man rek su ma toogoon naan damay xaar sama mag mu defar ma sama réew fi trop nga gis koo xam ne daanaka nekk na fenn te amuñu ko ko mu yegsi kon fekkee asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ nuyu di nuyu ñu toog ci plateau bi yëpp. jërëjëf. man la Fatia dëkk Touba Daaru Tanzil. soxna Fatia ñu ngi lay ziar. nuyu Moustapha bu baax ak Mame ak ñi toog ñëpp. ñu lay fay. looy wax di kontaan nañ tamit ci inscription bi. amee inscription boo xam ne kii gis na ni fi mu jógee dafa sori daf ñuy gën a yokkaat maanaam classe ci li nekk dañuy gën a bàyyi loo xam ne dama leen nga xam ne bu jógee fa sori sax bu ñëwee bala ma koy jox maamtaat yi dama koy dénkaat hmm. ni ko kii na nga bàyyi xel ne fi mu romb sori na te daf muy jógee sori na lool kon ku mel noonu waaw war nañ koo jàppale daa tansi lay jóge tey day sëy ñu hmm. ngi ko seen yor na ak njabootam ñu ngi koy nuyu Fatou Thiam nuyu sa yaay jàmbaar loolu bëgg métier bi chaque jour mi ngi xëy si di ñëw te daar tansit ko xam-xam ni euh, sori na ci jigéen boo xam ñor na sañ njaboot waaw mais ñu ciy bàyyi xel bu baax baax daal ñu ñu gën a sori moom surtout dañ bàyyi xel bu baax a baax mbokk mi salaamaaleykum waaleykum salaam kooku day sekk day jëng day sekk soxna sey na bu sekk sama jarbaat la sa nijaay Moustapha mi ngi lay dégg. kon nga Moustapha ji. maa waaye ngi jaamu. maa ngi sant bu baax. ah kontaan ah, ñoo ko bokk. jërëjëf ñoo ko bokk. bañ koo jàng. ah ndeysaan. Ah, daal ma. ah ñu ngi lay déglu ñoom ñëpp. ñu ngi lay jërëjëf waay. jërëjëf Saye ma samay paañ yooyu ñëpp. soxna Araf Basiru teel ñu tuuti téléphone bi. bu ko defee ñu dugal ñëpp rek sunu yaay soxna Ulay ñu ngi waa kër ga Ami Diop. Hmm. sunu mag ju baax ji ñoom tam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax soxna Bintu Fall. Hmm. kii doon woote sama jarbaat la. nekk fële ci tubaa Asselin ci centre bi la nekk moom itam. Ah. ci Mampadi mi la nekk. waaw waaw waaw mooy première classe bi fi la nekk. Hmm. waaw xam ne jàmbaar lañu fu mu toll ñoom itam temps may nekk asalam yi di jàng métier. Hmm. booba dama daan féet sama kër di jaay boobu foofu laa nekkoon. waaw booba di wàccee bu ma wàccee ba ceeb guddi. Hmm, am naa daan def waaw. jërëjëf. jërëjëf Mahamadou Moustapha Nguer ma fàttali moo di suñu invité tey di centre formation bu couture bu Nguer ISBAC nga xam ne am nañu benn fii ci route de Darou fi toll ak tali bu Soxna May waaye am nañu benn fii nga xam ne moo di Touba Guédé boo weesoo marché bu Guédé rek. en face guy siyaare waaye am nañu doon nit fi nga xam ne moo di ndindi bu ndindi bi moom xamaguma adresse bi. ah route de pa maam boo demee ba tolloo corniche Daara Jolof rek soo jëlee tali ndindi bi première borne kilomètre bi mook centre ci sump gi en face ñoo jàkkaarloo ci sump gi. sëñ Ibrahima moo fa nekk. waaw Ibrahima Guèye moo fa nekk. sëñ ñu ngi lay dalal TV. di hmm. nga xam ne. Hmm. mooy Waarwi TV. Hmm. di nuyu képp ko xam ne yaa ngi fi. tey ñaanal suñu papa nga xam ne wàññeeku nag muy sëñ Atou Diagne ñu ngi koy ñaan suñu borom yërëm ko xaare ko àjjana tey nuyu ñëpp rek ak képp koo xam ne ànd nañu moom ñëw ci fii ci Waarwi TV mm-hmm. di rafetlu bu baax a baax émission bi te xam ne am mm-hmm. nañu xabaar sax ci sëñ Atou ne ginnaaw tàkkusaan lañ koy jëbal borom tabaraka wa taala ñu di ko jàll mbokk jullit yëpp rawatina mbokk taalibé yi euh, yaa nekk foofu ci Ndindi euh, centre formation bi xam nañ ne Ndindi xaw na sori wala élèves yi fay jàng yëpp Ndindi lañ féete waaw am na si ñoo xam ne côté boobu lañ féete mais bi tamit am ñoo xam ne dañu jógee ca kaw di fa ñëw mm. lu ci mel ne côté gaz Dakar jëm côté boobu mm. ñooñu côté boobu la ñu jëm ci sant élèves yi ñaata lañ toll élèves bi instant yaakaar na egg ci quarante élèves te yaakaar naa bi ñu ko tijjee léegi mm. parce que deux mois lay soog a mat ah, te deux mois lay toll deux mois lay jàpp ah. <laughs> non xëy na rek ah, gëm gëm li ñu def rek ak di góorgóorlu chaque jour waaw di góorgóorlu baax a baax a baax ak di déglu baax a baax conseil yi xam ne ñu ñu koy jox muy ki nga xam ne mooy jiite muy sëñ Moustapha mm. daa nekk chaque jour du jukki di ñu woo mm. naan centre bi nii ngeen di def ak nii